ñoo leen di nuyu di nuyu ñi nga xamante ne tey waaw macha allah merci ok di nuyu ñi nga xamante ne tey ñoo nekk suñuy nawle nekk suñu xarit ñu àndul bu yàgg lool ba tey jii ñuy ànd mais li tax ñuy ànd sax xamuñu ko xëy na yàlla suñu borom la neex yàlla suñu borom moo ko defee noonu ba tey ñuy ànd dara ñaawul ma leen di nuyu ñoom ñëpp mu nekk ñi nga xam ne samay raq lañ mu nekk ñi nga xamante ne tey samay nawle lañ nekk ñi nga xam ne samay grand frère comme lu yu bajaan wax maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xamante ne tamit samay jigéen lañ nekk si koñ bi tey bu yàlla defoon ñu nekk ay góor ñun ñooy yeewandoor di àndandoor di defandoor lépp maa ngi leen di nuyu ñi nga xamee samay jigéen lañ ñi nga xam xewuñu samay dara di nuyu samay famille sama famille nag bu ma ko waxee sama famille jabar sama famille sama ñoom yaay waa jongwaar foole séeréer nuwaanaa leyaw séeréer mi simnam len nga maanu refoona rek mi simnam ci am wàcc waayof waaw di nuyu di nuyu aussi autorité yi fi ñëw autorité yi nga xamante ne kenn mënul dem sans ñoom ñun mënuñu dem saa ñoom ñoom mënuñu dem sans ñun ñu leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne dañuy tënk rek di leen wax ne ñoom ñëpp amuñu seen fay muy Doro Gueye président Grand Théâtre muy ñeneen ak ñeneen et cetera et cetera mais ñun ñëpp la sant ba staff bi nga xamante ne ñoo nekk si ginnaaw Tarkinda social mais Tarkinda social fondation mun naa ne ñun si social lañ juddoo suñu waxee social lañ juddoo nekkul ne dañoo ñaax lépp mais imaginal tey yow nga juddandoor ak sa nawle si benn koñ yow donte sa situation kër baax na sa sa papa mu ngi xëy di joxe dépasse mais yow sa xarit bi ngay àndal mu nekk sa miir ami situation këram dara baaxu si kon yéen ñaar yéen a rek même vie kon ñun si social lañ mos a juddu parce que ñun daan nañ foowe dem sàcc sa sa ceebu maam dem yóbbul ko sa xarit yaayam wala nga yóbbul ko tantaam ñun daan daan nañ def loolu bu ñu nekkee xale suñu grand frère daan nañ am xew ñun xale yi ñu kolo kolo benn xaalis boo xamante ne ñëw ba ci moom ne ko dañ la soxla ñu ne ko lii ñu ñoo la ko doolee ñun daan nañ def loolu kon tey bu ñu demee ba tey yàlla suñu borom indi ñun tey ñu nekk mbër porté li nga xamante ne tey mooy mbubu boo xamante ne mbubu champion la champion nag ku ko xam-xam ne léppam àndul ak dara làmb rek la àndal ok ñi ko gëm nag xam ko si loolu lañ gëm si loolu lañ focus mais ñun en dehors que lu ñuy tund si fi ñu dëkk moo ñu permettre tey ñu mun a am xel boo xamante ne tey ba mun a partager loo xamante ne leneen lu bokkul ak làmb tey moo indi social bi tey social ñun ba ñu nekkee xale ba léegi ñoo ngi koy def mais tey lii nga xamante ne tey ñu ñoo ko créer muy tarkindaa Social Foundation ñu ñoo ko créé ak ki nga xamante ne tey moo nekk samay ñu nekk sama ginnaaw nekk samay xarit ñu tàmbale koo def pendant dix ans ñoo ngi def social mais tey sama soxna mu ñëw dooleeku si ñu toog di waxtaan mu ne ma yow lan moo tax sa àdduna yow dama lay gis ngay def lu baax mais yow lan mooy sa rêve sa rêve sa àdduna ma ne ko man de ñaan yàlla liggéey pour suma famille ñaan yàlla liggéey ngir suba du añ du reer mais lu ma di sédd la muy samay njabootu boobu mais ñan naa yàlla liggéey ngir doomu aadama yi parce que lépp lu ma mën fekkee ne yàlla dafa ma nar a may tur def ma ki ma doon te amalu ma kenn njariñ kon yàlla bu ko yàlla def kon yàlla bu ma yàlla def kooku kon ñaan naa yàlla amal donte benn nit la ma amal ko njariñ may dund di dund di dund ba tey ma am xarit boo xamante ne tey reevam ci àddunaam képp kuy xaritam xamoon nga ko bu doon foo bu doon kaf dalay wax loolu dalay naan la man bu ma dundee ba dugal sama yaay si kër mooy sama ambition man na moom da la ko doon wax nii ngay dégg te tey bu doon dund ba tey mu tabaxal boppam kër leneen dul kër da am parce que ñun xamoon nañ ambition xamoon nañ jomam xamoon nañ jàmbaaram koo xamante ne dafa mës a si benn affaire boo xamante ne mooy Siteu lenn rek yow Siteu ñu ñoo la créé mbër nga war a nekk tey loolu am na moo ma indi fii moo tax tey ku ne xam su ma waxee ku ne xam ma dama naan Fodé parce que Fodé addunaam yëpp man la Fodé fu may dem foofu lay dem Fodé ah. amul sax programme programme Siteu la am bu gisee nit ñëw seet si ma ne ko Siteu dama laa bëgg mën la noo yow carrément Siteu man maa la ko gën a bëgg si koo xamee yéen yendoon di fanaanandoor ndoor Fodé damay am xaalis su ma ko ko dénkee bu ma ñëwee mun a ma jox naa ko kii jox naa ko kii ñooñu bu ma leen rombee ñu may remercier di may ñaanal mais kooku jàngal mbaax kooku moom a woon na la ñuy baaxe mais tey bu dundatul sinon xamante ne tey li tax ma koy def moom jàpp na ci bu baax ba combat bii ma jël ba lii ma jël dugal ko ci këram moom moom kese moom a woo parce que dumb yaa sama mag mu ngi fii seere na ma si loolu parce que boobu maa ngi def ma ne ko man li may def maa ngi def MMA ma si boole leneen su ma paree nag dinaa jël combat moom si jëmu boppam moo ma ne hee ma ne ko naa mu ne ma su fekkee ne am naa cër si yow ci loolu combat ma def ko yàggul dara nit ki décédé ma xalaat ma ne waa kii moom man xam nan laa war a def sama àdduna awma leneen lu ma ko fayee awma leneen loo xamante ne tey am naa taxawaay boo xamante ne tey moom laa taxawee ci war a faat Fodé Fodé Fodé nu mu amee yaay nu mu amee papa man noonu laa amee yaay amee ko papa te tey imagine chaque jour Fodé taxawaayam si yaayam lan la mooy xëy utal ko lu mu am muy xëy yëkkati lu mu yor joxo mais man tamit loolu moo nekk sama rêve sama famille kon tey Fodé tey su fekkee ne dafa nekk sama xarit ñu ànd mu jàppale ma ba fii ma si su fekkee ne man sama yéene dafa war a nekk su ma amee sama junni wala sama ñaari junni dem yóbbul ko yaayam pour man loolu dafa gàtt man dama xam ne Fodé benn rêve dong la amoon muy dugal yaayam ci kër kon man combat bi moom moo ma ko jëlloo kon man sama sama gëm-gëm mooy reliquat boobu dama ko war a jot tabaxal ko ci kër parce que loolu mooy gëm-gëm mu nekk loo xamante ne lu ma gëm la mu nekk loo xamee xarit la boo xamante ne tey en ah, door ko loolu ma koy defaral moo ma jox idée ma mun a créer fondation pour mun a continuer sama liggéey ma yàlla yem fii damay ñaan yàlla continuer sama liggéey parce que tey soo xoolee jaama gën buñ ñu dëkk jaama gën wax ji bari chaque jour ñu ne jaama gën nii jaama gën naa te jaama gën ay góor rek fa dëkk jaama gën ay nit ñu baax rek fa dëkk jaama gën ay nit ñu am xam-xam ñoo fa dëkk a gën ay xeeti dajaloo ñoo fa daje dëkk fa man ma juddoo foofu yaroo foofu hôpital bi ma juddoo tey boo fa yóbboon malade sañoo ko fa dugal école yi ñuy jàngee suñu jarbaade suñu rax yi di jàngee foofu école yi normalul amul sax dara lu normal te xale yi garab bu baax sax mënuñu ko gis ci école bi kon tey man sama rêve mooy fondation bi mu ñëw continuer rêve boobu ñaan yàlla hôpital boobu nga xam ne Siteu foofu la juddoo tey ñu defar ko ba nga xamante ne keneen mun faa juddoo école bi nga xamante ne tey moo nekk école Diamaguène mais ñaan nañ yàlla defar ko ba jeunes yi nga xamante ne ñoo war a juddu nekk suñuy doom ñu am fierté suñu doom juddoo fu nekk ñu am fierté indi ko jàmbagan mu jàngee foofu ñun rêve boobu la ñu am di si ñaan yàlla suñu borom képp ku nekk jeune képp koo xamante ne yaa ngi dëkk si banlieue bi képp koo xamante ne autorité nga képp koo xamante ne lii ñuy def muy fondation bi da ngay def te yàlla tax nga ñëw jàppale ñu suñu fondation bi nag amaguñu doole amaguñu kàttan amaguñu lépp ñun suñu gëm-gëm lañu am suñu ambition di demee ak suñu moyenu bopp te ñaanuñu yàlla dellu ginnaaw si loolu parce que amul kenn kuy def lu baax di am lu bon waaw ñuy ñaan yàlla nag ñuy ñaan yàlla nañu ñëpp ñaanal di ñaan yàlla jeune jàmm gëni nañu defaraa seen toogaay defaraat seen taxawaay xam ne lu dul jàmm jàmm moo gën lu dul jàmm jàmm ko gën fondation bi nag pare na pour gunge ci lépp loo xamante ne si luñ jëm mu nekk lu baax ñaan nañ yàlla dem ci ba mu jeex tàkk di rafetlu taxawaay bi di rafetlu toogaay bi di leen wax ne ñun message bi la ñu amoon pour lancer ko te lancer nañ ko maa ngi sant samay xarit ñi nga xamante ne ñoo nekk sama ginnaaw ñëpp bu ma waxee dafa mel ni nag waxal naa ñëpp temps amul jot amul waaw ñi jàppale si fondation bi ñëpp maa leen di sant yee ñi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal ak ñi nekk États-Unis di sant soxna Fama maa ngi lay sant bu baax di lay wax ni kontaan naa kontaan naa jërëjëf